suñuy jaar jaar daal dañu seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. góor yàlla yi ñu ngi siyaar ñu ngi màggal bu baax ah di jël nuyoo bi di ko teg si. loxoy Cheikh Omar Cissé ibn Cheikh Alaaji Keba Cissé di sàkku mu teg ko ci loxo suñu sang yu tedd yi Cheikh Habib Cissé Cheikh Chérif Ba euh, Baye Dioriñ Cun Cheikh Bara ak mbooleem góor yàlla bu fekk jotaay bi di siyaar bu baax a baax a baax Baye Matar ak góor yàlla yëpp waaw jotaay bi set na sell na ñu ngi siyaar ñëpp di màggal ñëpp di rafetlu kàddu yi nga xamanteni ne si ni jugoon na fi léegi ko ci Baye jëwriñ Baye Aya waaw kàddu yi set na sell na yàlla na suñ borom may jaam yëpp dégg ak topp ndax wax bu gudd wax bu gàtt amul solo li am solo mooy dégg li am solo tamit ci dégg mooy ginnaaw boo déggee nga topp samix naa wa atax naa donc dégg ak topp rek la suñu borom gërëm ñu ngi siyaar ñëpp di magal ñep di wax ni université fi ñun ñep xam nañ ni xam-xam kep ku fi ñew xam-xam nga saku mom nga bëgg am mo waral nga ñew inscrire fi ginaaw ba nga amé bac waye kep ko xamante ne ni amul bac mus mus mus muus loo yew yew yeewu munoo fexé ba inscrire fi ba inscrire ci ben faculté kon bac bi moo lay permettre nga dugg ci domaine de définition bi su ko defee yaa xam médecine ngay def géographie wala anglais wala lu munti doon li nga bëgg def daa am loo xamante ni si nii day am loo xamante ni na nga ko war a am balaa ngay mën a def loolu muy am bac muy am bac donc mooy njëlbeen bi kenn mënut a nekk médecin te amoo bac njëkk faw nga am bac scientifique kenn mënut a nekk avocat te amoo bac ken mënut nek nekk psychologue wala architecte wala lu mu munti don te amo bak ñeuk ta lol mirum saayir la rek ko jami bala nga kay jamu faaw nga xam ko d'abord nga soka jamu jamu bob nga am ci dara mu fay ci dara moo tax mu ne tarifuni qabla an taxbuduuni fa illa lam yarif fa kayfa taxbuduuni xam la bala ngeen di may jamu bu ngeen ma xamul xawmu nu ngeen di may jaamoo comme xam yàlla mënees nañ wax ni moy bac ci yalla bala ngay mëna def étude supérieure ngir am sa lijaasa mën nga ngir mëna jaamu ci gis nga ko diplôme bi nga am ngir nga am liggéey mën nga fayeeku xam yalla moy buntu bu ñëk bi jaam mënu ta am fonction ta amul bak, kon yalla mëno xoo jaam da amoo bac ñëk ak sa xel lu mu neex neex neex say jang lu mu yaatu yaatu yaatu boo xamut yàlla mënoo def lu yàlla gërëm xam yàlla nag ak xam ay santaaneem bokkut xam yàlla ak xam ay santaaneem bokkut santa yi santaane yàlla yi mooy ibaadaat yi nu ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñuy nattee asaka nu ñuy demee màkka loolu mooy xam santaane yàlla yi yàlla nag newul xam leen samay santaane balaa ngeen di may jaam xam leen ma man yàlla suñu borom balaa ngeen di may jaam la wax xam yalla bobu nak moy xam-xam bi nga xamantene ci ni moy defar jam xam yalla gogou moy fekk jam ju soufey ju di nga xamantene ci ni xolam reuy da cey fess del iñan da cey fess del ngistal da cey fess del mu duggu pénétré xol go xolu jam bobu non non gindi reuy gindi iñan gindi ngistal dindi yoy yop ba pare sala yalla borom jami ngay yëg yàlla sa xel di xalaat yàlla sa bët bi di gis yàlla sa nopp bi di dégg yàlla sa kaddu bi di kaddu yàlla sa mbooleen cër jublu yàlla borom jaami loolu nag boo ko amee ci ngay gën a mën a ci ngay soog mën a jaamu yàlla waaye lool boo ko amul munoo jaamu yàlla loolu dafa war a leer de barki laa ilaaha illaa allaahu loolu dafa war a leer yàlla suñu borom boo ko xamul munoo koo jaamu boo ko xamul na la bir ni tàbbeegoo si murit tàbbeegoo si tijaan tàbbeegoo si xaadr tàbbeegoo si laayen tàbboo tàbbeegoo si benn tarixa ndax tarixa yëpp lu leen tax a jug mooy xam yàlla borom jaam yi du ay jàngum xasida du ay gis nga ko dem siyaare ji Tuuba du ay jàngum alxuraan du ay nafar xasida yi du si yooyu yëpp du si yooyu yëpp ci laa ilaha illallah la ñuy xam yàlla mu kaa jaamu ndax laa ilaha illallah boobu moo mën a defar jamono laa ilaha illa allahu boobu ak secret bu làmbool mooy defar xol boo xol bi du yég lenn lu dul yàlla te yàlla soxlawul lenn lu dul xol bi yég yàlla soxlawul lenn lu dul xel bi xalaat yàlla soxlawul lenn lu dul ay bët yi nga xamante ni si dañuy na jàkk yàlla lu ñu gis bëtt ko soxlawul lenn lu dul dégg goo xamante ni si day dégg yàlla te loolu ci laa ilaaha illallaah lañ koy amee muy xam-xam bii nga xamante ni si ni moo taxoon ñu baax yi ñëw jamono dama ni sëñ Touba laataa moo teew jamono gaa yaa ngi doon julli di woor di natt asaka mu ñëw ne ma fi lu baax fekkuma fi ku baax kon ana la mooy lu baax damaa ñëw fekk islaam gàddaay dem sawu jan fépp mel ni làmbaay kon ana la mooy lu baax te gaa yaa ngi doon julli di woor di natt asaka kon la mooy lu baax loolu murit bu ko dul xalaat na la biir ni xamoo lu xew tijaan bu ko dul xalaat na la biir ni nekkagoo tijaan tijjaguluñ la dara laayeen bu xalaat appel bi moo ngi nii du gaa yaa ngi fay dem. dul xalaat loolu na la bind da ngaa tourisme ji amoo appel. dëgg waay dëgg. cadre bu ko dul xalaat bokkoo si njabootu Cheikh Mouna Cheikh Sadbou bokkoo si njabootu yonent bi sërif bu ko amut bokkoo ak yonent bi dara. doo sërif ndax sërif mooy ki gën boo amul xam-xam bi nga xamante ne si ni mooy tax nga gën. mu teg sa buntu safara yi ubbi sa buntu aajana yi doo sérif doo murit doo tijaan doo xaar doo dara boo dee tàbbi safara billaahi wallaahi wa taala xam-xam boobu la ñu Cheikh Moussa jox te xam-xam boobu mooy tax a jaamu yàlla te képp ko ko amut noo jaamu yàlla ndax yàlla dafa ne xam ma balaa nga may jaamu boo xamul xaw ma noo may jaamoo xam-xam googu moom lañuy ñuy sang bu mat sang toppeewuñu sang bu mat sang lu dul la ilaha illallah secret bu mu lambol mu def ko ci yaw nga muccu ci moy yalla waye moy yalla bi jami nek fi soxor iñan bek reey bek nan sangara sek seeg way yoy yeb barki la ilaha illa du julli du wor du nat aska du lol len len mu ko sey safara ndax gaa def te ñoy gënd bur di def lu bon ñaata yon liñ dégg ci teus imam bek maanaam ay ay ay ay ay coow am si jumaa yi nee nañ weeru koor bii bu ñëwee dañuy jéng dañuy takk ni nga waxatee sax liwu liwu liwu seytaane yi te weeru koor fitna bi ëppul si dëkk bi taximaan yaa ngay xeex lu ne ñoo ngi koy def te dañoo xiif rek gis nga ko buntu safaan yooyu ubbeeku si ñoom kon ñooñu wooraguñu julleeguñu da ngay gis koo xamante ni si day julli waaye bu kàbbaree ak saayaku dépense lay xalaat wala gis ko bu jullee ba pare leneen lu muy def xelam sax newul si julli bi kooku ndax julli na julleegul moo tax laa ilaha illallah mooy defar jamono lu dul laa ilaha illa allahu defarul jamono kulul xaq walaw kaana mu ran képp ku fi doon dara dangaa jàpp ci laa ilaha illallah nga soog doon dara sëñ Bamba ay mayam lu muy yaatu yaatu yaatu daane ci bëgg gi mu bëgg laa ilaha illallah laa amee lépp Cheikh Ibra ay maam lu muy yaatu yaatu yaatu ci téye gu mu téye laa ilaha illallah la ko amee ak ñoom ñëpp waaye amee ko ci julleeg woor ak déedéet sëñ Touba seexalul kenn si julleeg woor ak natt asaka ci laa ilaha illallah la seexalee képp ku mu seexal ak ci xidma kon loolu mooy mission bi jamono ji yàqu na nëx na xale yi dañoo bëgg yàlla jaam yi dañoo bëgg yàlla kon ne leen na dimbali képp ku am sa sang demal ci moom nga laaj ko laa ilaha illa allahu mu xamal la ko kon loolu mooy ordonnance su jamono julleeg wóor ak natt ko képp ku koy def barki borom daaru ci mbooy ba ngay mujj te xamoo yàlla billaahi wallaahi wa taalaahi nañ wax jaam yi dëgg Cheikh Moussa lu mu yor nii mooy dëgg ta bañ am complexe ku yàlla bind góor yàlla bi moo ko doon wax sànq du bàyyi ayaa bii dañoo yor dëgg nañ ko ñëwee ta wax ko jaam yi te deug bo xey wax waro sóoraale ay ki statue bi la nak bo toge ak Macky Sall sax wax deug bo tey ak Seigne Mountakha sax wax deug dëgg ndax moom dëgg lay dund bu mam borom Touba jamon ñewon jamon sax wax deug ndax ci deug la wo mom lay dund kon nañ bay complexe bi tege ko fe baña gaay deugal len dëggal julle ak seen dara tu si jaamu yalla nañ len wax xam yalla ag ci yalla ku xam yalla julli baxna waye ku ne si lol ta xamoo yalla bo de safara nga jëm ndax bu ëllëgee julli mooy ne kii moo ma doon jullee doon moo ma doon def te xamuma kon yàlla jël ko nga tàbbal ko safara julli pour aari fii la waaye du pour xaam yi kon képp bépp xam bu koy jëfandikoo te xamoo secret bu ci ne dalay lay tardel nañ wax jaam yi dëgg nañ wax jaam yi dëgg ndaw yi bëgg nañ yàlla te képp ku xam laa ilaha illallah bi xam ne lii ku ko xamut tàbbi safara ngay def nga noppee ko bañ kaa wax jaam na la bir ni deewee nga cërub naafiq barki borom daaru képp ku xam la yàlla nii ngay saafonteeg nit yi moo xam xam laa ko munti doon te waxoo ko yàlla deewee nga cërub naafiq ndax bu Cheikh saa defoon noonu yaakaar naa sëñ Habib ñun ñii duñ si jot bu defoon noonu barki borom daaru ñun duñ si jot kon nag bu ñu gën a gore bu ñu gën a gore nay ñaari wàcc ñaari ñaari tolluwaay nay moom daa am nayu saayir am nayu baatin